وثقلت أزوارنا وأجمالنا وأمنا وامسنا بقراءة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في يا خلينا في القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة سورة سلاما وبكل جزء جزاء وبكل حسب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن سناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء قلانا وبالدال جنوا وبالداء ذكاء وبالراء رحمة وبالذاء ذلفة وبالسين ثناء وبالشين شفاعا وبالصاد صدقا وبالضاد بالإفراد وبالطاء طهارة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فرحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وتنسى وما قرأناه ونور ما ترونه إلى روح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أمهاتنا أهلنا وأصدقائنا وأزاكسنا ومشايخنا الخاصة إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة ولا جميع الاصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واغفر من غدر المسلمين آمين آمين يا رب العالمين اللهم يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا استر العيوب واغفر الذنوب إنك يا مولانا على كل شيء قدير ويسر أمورنا وفك أسرنا واجبر كسرنا واحسن خلاصنا وبلغنا بك آمالنا لا تجعل الدنيا كلها همنا ولا مبلغ علمنا واجعله في أيدينا ولا تجعل في قلوبنا اللهم اجعل سارنا على من ظلمنا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اغفرنا على كلامك يا يوم تبعث عبادك وادخلنا الجنة بحير حساب اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاسعا ولسانا ذاكرا وصاحبة مطيعة وأولادا صالحة وتجارة لن تبورا يا نور نور يا عالم ما في صدور أخرج جميع المسلمين من الظلمات الى النور خرج جميع المسلمين من الظلمات الى النور اللهم لك الحمد واليك المشتكي انت المستعان واليك المستغاث لا حول ولا قوه الا بالله العظيم اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يشهد واعد ويعلم عدد قتل الامطار ولا واقع الاشجار وعدد ما اثم عليه الليل واشرف فيه النار لا تواريه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في قعره اجعل خير امرنا صل على سيدنا محمد بعد الأشهر الموجودات اللهم صل على سيدنا محمد بعد الحروف والأعوان اللهم صل على سيدنا محمد بعد البدايات والنهايات من المعدوم إلى الموجود إلى الأبد الآبادي وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين أجمعين وصلي على سيدنا محمد الفاتح لما علق والقاتم لما سبق الناصر الحق بلاقي والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره المقدار العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا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 yàlla yàlla def daanaka lii yéene ñu ci am lépp yàlla ko yàlla motu ci ñaanal yàlla yàlla yëkkati ko yàlla yàlla wéral ko yàlla yàlla dëgëral ko man yàlla may ko jàmm day jàmm yéen gërëm yëpp amiin yaa rabbal aalamiin ni sultaani okulli naafisina lal quudi wa saalimin wa aabidina sudi wa taarixin si turuqi tadlili okulli talmisin wa si balili wabi duha iya srifun balaya wabi raja iya idul hataya rasakana khaliqna nuraini wa ahsanal qitama ini bijahi ahmad wa man tallahu salama wa alaihi ya sahibal jalali wal kram ya basital arzaq akhlal anam nanu fatu faqfirana kulahin, fi babika allazi munahul muqrihin barke borom tuba seri ali bongo yalna yalla wiral yal na yàlla yokk ko wér yal na yàlla defal ko wér yal na yàlla def jàmm ci réewam waaye yal na yàlla def jàmm ci sunu réew yal na yàlla sàmmal nu sunu kilifay diine waaye yal na yàlla sàmmal nu sunu kilifay àdduna yal na yàlla tuur jàmm ci réew mi lii nga xam ni moo jàll liñ ciy xëccoo yal na sedd guyu yal na nu yàlla jox ki gën ci nun yal na nu yàlla jox ki gën ci nun yal na nu yàlla jox ki gën ci nun ki nga xam ni moo am yéeneem di xaritam ba defal ko lii moom it na ko yàlla fay yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla jox wér gu wér guddal aw fanam lool wéral ay cëram lool bi jaahi nabil Moustapha sallallahu alayhi yàlla musal nu ci musiba balaa kasara gàcce gàtt fan ak deego ñaaw topp yàlla gën a jafeel nu ko yàlla yombal mooy yàlla gën a yomb yéen ko yàlla jafeel lu nu topp lu mu néew na yàlla fulal nu ko. lu nu mooy lu mu bari bari yal na yàlla jéggal nu ko yal na nu buur baal baal sunuy jur yal na yàlla guddal sunu fan wéral sunuy cër dellu li nu xiiwal ak wërsëg bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla jéggal sunuy jur yal na yàlla jéggal sunuy wayjur yal na yàlla jéggal sunuy wayjur yal na yàlla jéggal jullit yépp bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yokk leer Serigne Touba njabootam. yokk leer Serigne Touba ak njabootam barkeb Serigne Saliou yal na yàlla defal ñëpp am jàmm bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin rahmani rahim il fatihi lima ukhliqa maliki yawmi din wal xaatimi lima sabaxa iyaaka nahbudu wa iyaaka nastahin nasiril haq bil haq ihdina siratal mustaqim والهادي إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وعلى آله اقدره خير المخدوب عليهم ولا الضالين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 alhamdulillah rabbil alamin barki borom touba yalla ñep xamna ñu rew momu maulana cheikhul khadim fa ko exilé won waye njabotam gu tedd gi man anna na fa cheikh mohammed ay yoon waye bañ fay dem bobu mom mi modul conseil supérieur islamique bayam du jitu rewma kon nak dalay wone mom ab julit da te jarna ñaanal te yalla mo ni ñaan len mo may udu ud'uni astajib lakum ñu ne waat addu'a silahul mu'min ñaan moy armab julit te di bakar diagne mi di kenn ci ñun di suñu soppé ñu and yag nañu and ak moom dem ci ay njiiti réew ma xam fi ko adna bi tek ak ni ko bi jappé an nañ dem centre afrique an nañ dem kuwait an nañ dem qatar an dem libi mom mi xeyna ci es xamuñu limuy muy liggéey ci adna mi ci walu jamm ak dimbali doomu adama yi waye ci lay xey ci lay gont muy nit ku baax ku am coloré li nit ku am coloré moo koy def sa mbokum julit febar réew ma sori lool nga jël ay ñam jël sa alal jël ay ay sarax di ko defal ngir yàlla oyofal yaramam ba mën ba mën liggéey réewam dafa bàyyam yéene woon liggéey kon ñu ngi ñaanal président Ali Ali Bongo yàlla delloo si eh, wér-gi yaramam yàlla sàmm ko ba lim doon liggéey lislaam ci ci ci keppaaru baayam di ko liggéey réew mi ni actuellement di ko liggéey lislaam bi bu yàggu rek daaw jéeg bi ñu fa demee ci waajtaay màggal Touba ànd ak Cheikh Mahamadou Bachir avion spécial la jël aal ko délégation bi ñu ñu ñu def tuuru Gabon kon nag kooku wane na bàyyi na xel Serigne Touba te màggal Touba at bu jot day yónni son excellence l'ambassadeur de Gabon bi nekk Dakar mu ñëw Touba def ay xéwal kon nag sëñ li nga def tubaa gépp nga ko defal yoonu murit gépp nga ko defal waaye Sénégal gépp nga ko defal waaye jullit yëpp nga ko defal ñaan yàlla yàlla def jàmm ci suñu réew mi ñu nekk comme ni ko góor gi ñaan léegi yàlla def fi stabilité léegi laa koy wax ak benn kilifa téléphone ñi ñi xamul fitna rek ñoo ñaan fitna waaye ku xam fitna xam ni mën yàq da nga moytu fitna ndax réew mu mel ni Libye sëñ mi miinu na ko lool bokkoon na ci réew bi gën a naat ci Afrique fu ne mooy réew mi gën a ndóol ci Afrique te fitna dong ko waral kon ñu ngi ñaan yàlla lu ñaan yàlla na ko yàlla nangu euh, suñu Aliou Bongo yàlla defal ko tawfiix ko ndax ndaw la te ba tey dese na kattan mën a liggéey ci réew ma yàlla na ko ci yàlla defal kattan mi ko defee lu mu ko ñaana rek ñaan nga yàlla na dem ci Aliou waaye yàlla na dem ci moom miit ndax suñu suñu mag la suñu soppe la suñu xarit la yàlla def jàmm ci réew mi ziyaara sëñ Moodu mi nga xam ne aussi ci péncam lañu lañu lañu sëñ Bakar tànn nga xam ne pénc mi péncu leer la péncu lislaam la pencu barke la yalla yalla yàlla nangu ñaan yëpp alaykum bismillahir rahmanir rahim ma ngi sant yalla di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant Serigne Touba bu baakha baakha baax di sant Serigne Touba bu baakha baakha baax di sant Serigne Touba bu baax di len gërëm yeen ñi nga xamni yene ñew di ay wëlëre di ay xarit di ay mbokk ci ñaan gi nga xamni ñu koy ñaanal président Ali Bongo yalla musul ko yalla wéral ko ci wap ji nga xamni moko ko dal te yalla moy faj wap bu mu mën don faj ko da dara ci yalla te yalla nako ko yalla yàlla ci wéram delloo ko ci sagom sam njabotam sam rewum gabon ci barke yonent bi ali salaatu wasalaam barke alquran jinu nu fi jang yalla man nako ko nako yalla def te alquran mom ben saar wa gën ci alquran rek Fajna ajo lepp lu yalla bind waxatuma la ak benn nit wala benn dëkk wala benn continent kon nag yàlla na yàlla dëgg ci ñaan gi wéral Ali Bongo sàmm ko sàmm njabootam sàmm réewum Gabon sàmmal ñu Sénégal gi ñu nga xam ni ci lañu dëkk yàlla na ko yàlla sàmmal sànnal suñu njiiti aada sànnal suñu njiiti réew sànnal suñu kilifa yi diine yi nekk ci suñu kanam yàlla may leen wér may leen gudd fan te yàlla mottil si yéen yéene ci diine barke Serigne Touba barke Borom Touba barke Borom Touba jërë ngeen jëf.